mbokki jullit ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñëw rek di ànd ak yéen di leen won ziyaara Thierno Adama Gaye bi yàlla defoon mu amoon ci 2018 yéen a ngi gis noonu kaar yi fi ñuy départ ci cité 1 euh, mu nekkoon 11 avril 2018 ñaa ngi noonu nit ñi di ñëw par benn benn. kaar yi pare nañu ñi ngi war a jëm dëkk ba lekkoon 11 avril nit ñaa ngi noonu di defante euh, waxante ak njëkk tàkkoo ak ñi doon gunge ak ñi doon dem foofu mu nekkoon la 11 àllarba 11 avril 2018 moom ngeen gis noonu. xam naa ni yéen a koy gis ci Pikine foofu départ bi nekkoon cité 1. daanaka départ bi mi ngi waaj a dem jëm njàng yi di fi ñuy defalee ziara ngeen gis suñu Cheikh Mouhamadou Hadi Dieye nga xam ni moom la yàlla sëriñ bi jiituloon ci nit ñi mu nekkoon fii ndeysaan ànd ak ñun daaw dem sax ci délégation bi waaye daan ànd ak ñun gunge ñu ñaanal ñu mu àndoon ak ñun daaw ñëwoon doon def dernier ziaram ndekete te ñun xamuñ ci woon dara yàlla mooy dogale ay mbiram noonu yàlla ko yàlla jéggal yokk yërmandeem ci moom ak mboolem ko. gaar yaa ngi noonu ci 11 avril bi jëmukaay yi la ñàng waaw jaare ñàng iri bi moom la ñuy wane ñu fàttali la rek ni ziara bi mi ngi am at bu jot ñaareel bu samedi ci weeru avril bu dee ngànt amul daaw mu nekkoon 14 avril ci loolu lañ nekk di ñaan nag borom subhaanahu wa taala bi tamit yàlla may ñu ko fekkee mu war a nekk avril samedi bi ñoo ngi noonu di génn Dakar ñoo ngi noonu daanaka génn dakaaru convoi baa ngi génn Dakar ñoo ngi dem jëm waalo ñoo ngi jëm ñàng idi ñoo ngi jëm Dagana foo xam ne fii escale boobu dong lañ am ci kër Alaaji Seyni may jéey ci asalam Dagana di ñaanal njabootu waa Dagana gi yëpp ak fa nekk ni ñi teeroo gan yi yàlla yàggal leen koo may ñu yàgg koo taxawe ñoo ngi noonu jëm Dagana yàgg nañu Dagana Dagana nag du délégation Dakar yi rek moo fay nekk fu délégation du jege muy Thiès muy Tivaouane muy Mbour muy délégation yëpp. ñoo fay daje waaye bu soobee yàlla dara du am lu dul lu neex ñu togg mu bëri kattanu gan yi loolu délégation kaar yaa ngi doon taxaw yi jóge fu nekk ñu daje fa yendu fa bi ziar bi commencé ba tey ñeent fukki at ak nangam ñoom ñooy dalal gan yi foofu ñuy añe fa buñ fa añee ba pare nag ba noppalu nag doog jëmaat ñàng iti ca fi ñuy ziara suñu euh, sëriñ bu tedd boobu euh, alxaaji Ceerno euh, Adama Gaye te jamono ji yàlla def moom mu jiitu ji ñu ci barzaq waaye doomam ji alxalifa Ceerno Mouhamadou Adama Gaye jiite euh, mbooloo mi te yàqu ci dara yaar bi nag muy amee at bu jot nekk ci teralaayu teral bi ñu ko teralee Cheikh Al Bachir alxalifatul umariya waaye tamit mu nekk ci njiital Ceerno Madani Muntaga Taal loolu moom mooy ziyaar ñàngay ni bi am at bu jot ñoo ngi noonu di génn dagana di jëmaat xam naa ni ñànk idi ca ziyaar ba ñoo ngi noonu ci jógee bi kaar yaa ngi noonu jëm euh, ñànk idi euh, di ñaan borom subhaanahu wa taala ni ko defee woon daaw yàlla ma ñu ko 2019 dem ñi tamit ñu daje fa def ko mi ngi nar a ami bu soob yàlla ci 13 avril bii nekk samedi waaye départ bi nekk le 10 ci fi daan départ la ñuy ñoo ngi nii jëm xale yi di waxee ilaa ñàkk yi di jëm kaar yi incha allah bu yàgg léegi ngeen gis leen ñu yegg ca dëkk ba ca ñàkk yi di waaw ñoo ngi noonu ci tund dex ga yaa ngi noonu gaare oto yaa ngi noonu gaare moo taxoon bac baa ngi noonu waaye bac yi dañuy indi ñaari bac ñetti bac ci mën dara léegi nag ñu bàyyi leen ak euh, ziar ak cérémonie officielle bi ak seen ak ay ganam. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen sharxu ñaan di leen ñaanal di ñaan ci yàlla. ak yonente ba cheikh na Ahmad Tijaan cheikh Umar Fuuti ak képp ka dina ashhadu an laa ilaaha illallah noonu laa gërëm dala sant da ñaan ci yàlla bés bi ndax yàlla may na ko mu jàll na ko mu war jàllee noo ngi gërëm nag àdduna jullit ñëpp sabu jullit ñëpp taxaw nañ ci ndax fekkoon Ceerno Adama jullit moo xem ca moom mu bëgg jullit ñëpp jullit ñëpp bëgg ko amul ka dëkkut bisam bi eh, yéen julli ñi mag leen ba nit màggee rek julli ñi ñoo ko magloo ba nit nekkee rek nit ñi ñoo ko def xam na ni nag cofeel gi ngay bëggoon ba ngay ba ngay soppoon Ceerno Adama ëllëg tey ngeen ko lu mu génn li àdduna noo ngee ñaan ci yàlla ak nit fu mënti jógee ak ko bëgga ak ko bëgga ñëpp yenn yàlla defal jàmm yenn yàlla sotti mbaax mbaax ci réew mi julli ñëpp ñàng idi ak la ko wër ñoom ñëpp ñëw nañ fu nu dem ak fu toog ak fu nu taxaw ak fu nu wax jullit ñoom ñoo na sopp la tax nag ñu soppee noonu mooy ngir Thierno Adama nooy ngay ñaan ci jullit ñoom yenn yàlla sopp nooy ngay ñaan ci réew mi ak réew yi jullit yi ak fa jullit mënti nekk ci réew yi yann yàlla defal mbaax mbaax ñu tukki wuti ñu toog ñu fi da bay ak ñu tukki wuti xaalis ak ñu sëy ñi ak ñu bëgg ñu sëy ak xale yi amul ñu dara xamaguñu dara ak ñi ñuy jàng ñu Quraan ñuy jàng école ñëpp yenn yàlla defal mbaax mbaax kontaanoon ba baax kontaan bu baax yal na leen yàlla teral man sax léegi fu ma toll fi naka nit ñi mel ci sëriñ bi ak ci jullit ñi daf ma ko def place sax bu léegi nit ñi ñoo baax biñ baaxut ko woon mënuñoo mel def ni kontaan nañu bu baax yéen منيل الفضل جعبا من أهلكم ومن خاتة الأصحاب أنوار النبرات ولي عندكم اسم وغربة نسبة مردية عقادة الخير الرات فوالدنا الحافظ الأحد عنكم كذا الأم أنا قال الأولى دوب إدلاتي عليكم إذا المولى يا أم يا لكم ومن ليس أهل الود والورد بالناس صلاة وتسليم على جدكم ومن أمد من أنوار الرشاد بمقبات mu ne tàqaliku wut tamit ci ginnaawam mu bàyyi ñu baax ba mu commencé ci saaba yi ba yegg ci sunuy maam bi ñu topp ci ñu topp ci ñooñu ak wàlli yi yàlla yi ceeno aadama nag yàlla boole ko ci ñooñu boo koon nag bu fekkente ni ñëw nañ fii di wut si mbaax ci moom dañ koy am yan nañu bur yàlla nangul yan nañu yàlla nangul mu ne kon ginnaaw noonu la ñu war a jox Fall Seck muy continuer ñu kàddu yi. léegi nag jox nañ ma naa wax waaye du man rek fi ne maa ngi ñaan jéggalu it surafaaw ñi nga xam ne ñoo jiitati yàlla jiital leen ci lii ma wax tatu ndax yonentaa ko wax ne xadimoo Quraysin jiital leen waa Quraysin xanaa dañ leen di ak dimbalanteeg yéen rek waaye yéen a ko moom. kon nag ñoom sërif yi ñoo leen di jéggalu di leen siyaare. di eh, niki sama eh, mag ji la nga xam ne wala sama rakala sax ndax nun la yàlla boole woon ci jamono muy Ceerno Yaaya Ba. ceerno adama milen mo fekke si ceerno adama oɗo mo garɗene ko mum moom laa gisoon mi ngi ànd na on de ko yino jaadigal ma e makko gis naa mi ngi ànd o ko e yàlla dana ko fay ci àddina e ndax lii ko def holko waɗi fekkee donga gude teral mag ñi tawi gune teral kon nag jangeen gis mu xam ko dal jiiɗon hannde ceero basuru heɓi ɗum yeglene kadi manko jëlee ce liggéeyam gande koye ɗum ɗon allah tottirimo ɗum koye darde makko dafa yegoon mag ñi tottinnoɓe mawɓe ɓe teɗal leen omo teddinno mawɓe ɓe moom la leen di yàlla fay nde woni ko allah yoɓatama waawi yow mii doo gune kono nga ci sab juddu a yi jibinandema walla nga seet sa xam-xam walla a haafima gandal ma joxuloo mag ñi seen walla kani mawɓe gueɗe mumen day mel ni xamuloo dara annde de ene wayno ala ko moom di ci loolu ko gisoon o ndun ne gun toogee tey ñu ne nu waxal waxal ah nun de xanaa nuy ñaan yàlla ak lammiñu ceerno adama wo mu doon lam nu doon wax loola lunu lunu ko amee ci leema leen fi tàmbalee wax yëpp ceerno adama loola daan wax loola daan jëfe ceerno adama ne na ma boo bëggee gën say bokk dañ lay gënal sa bopp ma ba ay bokkam gënal ko bu ñu xamee haaju waccal sa haaju bu ñu bëggee loo xamee bokke leen ko bu ñu la tooñee nga jéggal leen booba nga leen diggal waaye la ma bëgg nit sama boppam a gënal doo gën kon nag yàlla na yàlla may nu ñu uttoonte ñu bàyyi xel ci mbaax e nun ñëpp yàlla nu yàlla baaxal inga tutu mbaax yàllaa ko moom bu fekkee ne may nuñ la woowu tut da ngaa taxaw de ndey du la ko tuddee bay du ko tuddee de tutu yàlla bi ngay baax rek defe naa yàlla fa lañ ko yemal yàlla ku baax la boo baaxee ba ñëpp baax nga yëgal ne kat xam nga tutu yàlla kon nag nan jéem a baax ma ne la bu la yàlla baaxee xeeti baax lu la lim baax si yow amul njëriñ waaye nag njëyeen ñe njaween ñi dañuy wax yàlla yàlla nag nu baaxee yàlla nag nu baaxee bu la yàlla baaxee ti baax lu la lim baax si yow amul njëriñ lii ñuy ñaan mooy fan wu gudd loolu

doo ci baaxee kenn loolu it xamul njëriñ ndeke lii xam njëriñ moo dig baax kon nag yàlla nu yàlla baaxal. asalaamaaleykum mbooloo mi. kër baag ji kër baag yi mun ko wax baag eh, ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen baalu ak ndaje mi dafa ci jeex la jëm. waaye mënuñu jeexal ndaje mi te defuñu cérémonie officielle cérémonie officielle boo ko déggee mooy waa nguur gi dañuy ñëw toogandoog waa kër gi ñu waxtaan jottalante ay kàddu waa nguur gi ñëw nañu ki leen jiite mooy le ministre Abdoulaye Daouda Diallo yàgg na fi ñëw du tey nit ñi xam nañu ko ànd na ak ki topp ci gouverneur bu Saint-Louis ànd na ak ki topp ci préfet bu Podor ànd na ak sous-préfet bu euh, Gamadji ànd na ak le maire de Dodel le maire de de de maire de mais aussi ànd na ak ñeneen ñeneen képp kuy di service technique fii ci département bi yaa ngi fi. ñu ñëw nag fekk fi mboolo mi nga xamante ni xarit lañu doom lañu taalibi liñu soppe lañu ci Thierno Adama Gaye bu ñu tënkee rek amul këru diine dooree ndar ba ba ngay yeggi bakke boo xam ni ndawam yegg si wu fi waa région de Matam yépp mën nañ tënk ci seen teewaay ci teewaayu Serigne Fall Seck waa région de Saint-Louis yépp mën nañ tënk seen teewaay ci teewaayu euh, euh, Thierno euh, Yahya Ba ñooñu buñ leen tuddee rek na mel na tudd ñu lépp nee nañu nag nee nañu ci tënk suñu paree ci lii dex ka la ñu jëm ndax xam ngeen ni pont bi ñu doon ñaan ay ati ati nga nii sotti na le ministre bi nga xam ne moom moo ko yor moom mooy tegi xeer wa bu ñu paree ci lii dañuy dem tegi xeer wa xeer wa xeeru nag bu ñu teg kilifa yëpp danañ fa teew sëriñ si danañu teew ñaan ndax yàlla def ci jàmm yàlla def ci sutura lépp luñ ci séentu ci mbaax yàlla defal ci lu tawee suñu njort kon monsieur le bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on e inde monsieur le hono mouhamadou bachirou sall omo salmina omo juuro dental ngal omo ñaago on yaafuya sababude yinnodemo tawtorede ñalawma hannde o kono amo e ɗanngal amo ñaaguimoɗon heen yaafuya no feewi so ɗum ɓenni ko adi pop en calmini en juurima dental ngal fof en calmini en juurima ceerno madane tall mo ngannduɗaa ko cheikh oumar so wiyaama cheikh oumar noon eɗen nganndi sénégal heedaani caggal kono département podor ne kay heedaani heen caggal commune dulel ne kay heedaani heen caggal min calminiimo min njuuriima mo min calminii jinnaaɗo makko o yettinana min calminaali amen e jinnaaɗo makko hono ceerno basiru tall min calminii ceerno yaya ba min calmini ceerno mamadou adama gayi mo ganduɗa ko kañum woni sababu e ngal ɗo dental hannde ko noonne min calminirta dendagal galleji diine gondi e nder diwan galle el haji mamadou galle el haji mamadou lamine galle el haji mouhaji galle el Eh, mamma aaw e galleeji diine fof gonɗi e ndeer sénégal kamɓe fof min calminii min njuuriima ɓe so ɗum ɓenni min calminii monsieur ministre abdoulaye eh, daoude diallo min calminamo amin ndaara jam makko amin mbiyamo kadi bisimilla makko e nder eh, nokku makko ɗum ɗon noon Eh, hakkillaji kadi goppe hen kala ko wawi yantude hen kam ko ɗum woni fondement o sa naati e jeeri ndi jawdi fo eggi fayi ladde fayi dow hande haydara ala ɗo henna heddiɓe e nder jeeri ɓe koyemumen no keddori ni ene heewi caɗele ɗum ɗon kadi amin jiiɗi eh, hakkillaji eh, goppe kadi e, e nder ɗum ɗon ko wona ɗum ko ko wiide to banggue sécurité o ɗum kadi amin jiiɗi nde wawata kadi ɓeydede nde wawata kadi dolnede par que hanki wiyeteno ko guyka jawdi mais hande noon eɗen nana guyka yimɓe guyka sukaɓe e gueɗe baɗe noon eko nandi hen wadde ɗum ɗon sernaɓeɓe ne ñaaga hen duwaw mais gouvernement ne ne ñaaga kañumne hen darde nde ɗum ɗon wawata iwde ɗo par que ɗum en ganda ɗum en gowani ɗum ganduɗen kam ko jawdi no wujje mais ɓiɓɓe ina gujje kam vraiment ɗum ɗo elle ko kesum e meɗen ɗum ɗo noon ne mbaɗanta men heen duwaw eɗen na e, mawɓe leydi ndi ne mbawata darade heen ngam haɓade ɗum ɗon par que ɗum ɗon ko hunde en no hulɓini no feewi no feewi ɗum ɗon noon en calmini en juurima en jafnima allahumma salli ala seydina mouhamadin salli diallo moom moo ne assalamu aleykum Thierno Madani Bourguiba nee mi ngi nuyu Thierno Madani Mourtada mi nga xam ne moo fi toogal Cheikh Oumar Fouti. Samina Thierno men Thierno Yaya Ba. di nuyu sunu sëriñ Thierno Yaya Ba. Thierno men Thierno Mamadou Adama. Gaye di nuyu sunu sëriñ Thierno Mamadou Adama mi nga xam ne mooy xalifa kër gi. salmina Serigne Fall Seck. di nuyu Serigne Fall Seck. nde salmina bandiraɓe seeren ɓe tawtoraɓe jonde nde ɗi nuyu mboolemi ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bandiraɓe jonde nde bokk dillir ñepp ñi fi teew bandiraɓe doɗel bandiraɓe gamaji bandiraɓe département de podor bandiraɓe fuutankoɓe assalamu aleykum wa rahmatullah mbokki doɗel gamaje saare département Podor réew mi yëpp wërngal képp nee na leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salmini monsieur le di nuyu gouverneur. monsieur préfet. ak préfet. sous-préfet Gamadji di nuyu sous-préfet Gamadji honorable député Aminata honorable député Aminata Ly. honorable au conseil honorable au conseil Aïssata Tal. Aïssata mi salmina mawnam le président du conseil départemental Mamoudou Dia nee di nuyoo président départemental di jaw Arba Dia mi salmina Mamoudou Dia mi monsieur le maire Aboubacry Sow di monsieur le maire Aboubacry Sow monsieur le maire Ba monsieur le maire Demba Ba pour nommer monsieur le maire de Dodel. mu ne monsieur le maire Dodel waroon a jëkkee commencé. et le ministre euh, Yoro Hammet Diallo. ak ministre Yoro Hammet Diallo. docteur Ndiaye. ak docteur Ndiaye. bandiraɓe dental ak mbokki mbooloo julli ñëpp nuyu na leen. amin jetta allah no feewi. nee ñi ngi sant yàlla nag bu baax. Euh, mbiɗi siftira tan hitande 2009. nee mi ngi fàttali ko 2009. Ardido et président de la République président Macky Sall. ñëwoon na fii moom ak président Macky Sall ci kër gi. ndeen no hannde nii. boobu mel nañu ni tey. yettere Allah no feewi. waaye ñu sant ci yàlla. ceerno Mamadou jaɓɓi min. ceerno Adama daadi leen o nawi min to ceerno Adama. mu dem yokku leen ba ñu yegg Adama. bismi min. mu dalal leen. hirsani min. mu ragal leen. on vit la bourde Mamine Ngoto min yewtude e makko min jooɗo wona fokk ñu toog ba añ ba noppi dooga a nuyoo ak moom président de la république wimo ceerno président nee ko sëñ koye laawol kono min ngoni ci yoon ci yoonu xara lañu ne won anniyaaji ɗi jinmi wadde fuuta am na yeene yi nga ne moom laa yore bëgg koo def ci fuuta hadimi areema waaye tey ñëw naa ci yow mbiɗi yiɗi annene mballita kam mi annda ko woni sohlaji men ɗon tamit nga dimbale men mu xam lan mooy suñuy soxla fii ceerno adama wimo sëñ na ko fii ah minen de ko caɗele gooti min jogui lu jafe-jafe benn lañ fi yore pom ñanga so feewi tan golle men fof peewi boo ñanga daal bu ko yàlla taxawalee lépp day baax ballamin joltanamin waalongo mone toon waaloy tamit nga dimbaleen ñu ci sa fewni min pomo boo ñu defarale pom joktini min waalongo to yoonu waalo wi nga daal di leen min ceerno adama haydara mi dara te on anniye sono yetto te yeene boobu buy yegg ceerno adama haalata de ceerno adama mooy wax barke cheikh tidiane ma lawni mo kon loolu dina yemb ɗon yewtere amen haali fela teen kabbiye ceerno wimo sëñ bi na ko so tawi anniya ma o ina tiiɗe ma bu fekkee lii di sa yéene mi ngi dëgër ci yow barke Cheikh laamu leydi ndi barke Cheikh Tidiane di jiite réew ina wayno haala ka gasi mu ne wax jooju jeexanna allah walli min yàlla dimbali min eh, kawre ceerno madani ceerno mutaga ak ceerno madani mutaga nde wonno saɗa siftini yimɓe hunde neɗɗo fekkeni ko fekke yaani fattanil nini ene moƴƴi seeɗa tawe mbaɗa seeɗa tew 2013 amin mbaɗa pose premiére pont jum ni def pose premiére pont jum eh, ceerno eh, mbaɗani ina tawa ceerno mbaɗani min duwaw ñune ma ñun ñaan amin gannayi gollade fouta ko mawni ni ngi fas yéene liggéey ci fouta lu rëy e inde président de la république ci turu président ceerno wi on pawi poñum sembine taggen poñum ma won pawtu pomuji e pomuji e pomuji e pomuji e welede allah ɗigen tag yeneni po bëggee ci lu neex donc ina walla di ina walla Fuutankooɓe. ko ɗum marum Fuuti diinoo. mu ne loolu baax diina ji lool. yettere ala ko ɗum woodi hannde. sabu ni min ngummi ɗoon. ndaxte fi ñu nekk nii. gila 1960 ha 2012 1960 ba 2012 duuɓi capanɗe joyi ɗiɗi juróom fukki at ak ñaar département de podor heeɓi pomuji tati département podor ñetti poole ñu am nde ceerno madani duwi ceerno madani bumu ñaane hannde amin jaare jeeɗiɗi tey ñii tolluti juróom e, e duuɓi jeeɗiɗi yettere allah no feewi sante yalla no baax pomuji ɗin ɗon yoyi ko pom jumo konju pom dimat min joƴƴini hayrde hanki pom gueɗe min joƴƴini hayrde hanki pomuji ɗiɗi doɗel doɗel 1 e doɗel 2 sa watti hen bole jum e, e sa rendini limore won taw ko te bandiraɓe mbokk yi anni yaaji ɗi gasaani ñeene yi jeexul ɗum ko fuɗɗoode tan loolu tàmbali la e président de la république président li nga xam ne moom la naan o yanti heen jeeyam la ci karu yanante bi sallallahu alayhi wa sallam mooy liggéeyam la ci diggante kër Cheikh Ahmad Tidiane liggéeyam la ci kër Cheikh Omar al Foutiyu mu ne liggéey bii nag liggéey bu ñu nangu la ñun ñu ñëw nag di toppaat ci ginnaaw liggéey yooyu yan nañu yàlla may ñun tamit ñu liggéey luñ ñuy nangul ñun xam na ñun ñëpp ay jëfam ak melokaanam ne dajee na ak moom waa sot mu ne sama doom ñëwal ñu ànd ñu ànd nekk bu mu koy wax ñu ànd ñi ngi jëm hôpital mu ne ko kan moo la newal fii mu ne jaamu yàlla yi ñoo ma fi nekkal mu dugg mu ngi yore sarbet mi ngi ci fas yi xaalis yu xànjar mu génnee xànjar bi ku ñëw ku tawat yëpp am lu mu di somp jox la ba sarbet bi jeex mu ñu dugg ci néeg mu seet sarbet bi mu yoroon fekk jeex na mu ne sama doom baa am nga la fi yor mu ne li ma fi yor bariwul de mu mu ne ñu jox ko bu ñu ñëw ci jeex ku tawat mu jox ko mu jox kooku mu ne li ma li ma yoroon de jeex na mu ne kon ñu ñubbi maa ngi rus ñëw ci ku tawat fekk loxoy kese laa yegsee ci moom loolu xol bu baax moo ko mel jëf ju baax la doon doxee loolu la doon saa lool moo nekk ci béréb mu ne buur bi yàlla moo ni qulu linnaasi husnan yàlla moo wax loolu yanante bi waxtu jàngal ñu ko ba yegg ci moom moom Ceerno Adama foo yëkkati wax leen lu baax waxal leen nit ñi lu baax jëf leen lu baax jëf leen lu baax yan nañu yàlla dimbale ci wax lu baax yan nañu yàlla dimbale ci jëf lu baax yan nañu yàlla nangul ɗo ko ɗo koko duwa ayi mbaara ko président waɗi ɗum kanko fuɗɗi ɗum kanko fuɗɗi ɗum ɗo eh, eh, huɓere nana kanko fuɗɗi ɗum laamu noon enen fof ngannden allah wi ko wa adiullaha wa adiu rasula ulil amri toppaleen yàlla ngeen dëgg ndigalu yonent bi ak ñi nga xam ni ñooñu la yàlla jox ngan ngan den laamɗo ko allah rokka yalla koye joxe allah wi meɗa rokka laamu kala mo mbelami o tansi ul mulku meɗa teeta malko laamu ngu kala mo mbelami so tawi allah teetani hol teetowo hol teetowo ana koye nangu minen de amin gandi minen de amin gandi xam kala ko neɗɗo haali noon nekki ko politique ñin ko kala ko politique kono noɗɗo ene suusa wiide kaarino jeeyam waye kaarino mo ƴeeyam ñagana wahde kaari ko moƴƴo ko moƴƴoyam diw hol mbaw ɗum hadde neɗɗo haal ɗum noon tinnoɗen gonen konngol gootol gonen konngol gootol gonɗe konngol gootol mbasen weñodirde allah wi jabɗo allah allah wi taawuno alal birri wat taqwa wala taawuno alal lismi wal udwan koni allah wi lii la yàlla wax allah bi namal mu'minuna ixwatun fa yàlla nee jullit ñëpp ay mbokk nag kon nag defar leen seen diggante allah bi wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñëpp mooy leen jàpp ci buum bi yàlla kenn bu leen taqali raadi jaal kalbargi wa ma shaabahu min lahdi darfin qad sama wa najihi min alhisaabi wal iqaab warzuqhu fi liqaa'i husna almaad wal tastajib duaa man daaka wa thabbit irdam arrajaa ridaaka ya rabbi bismika العظيم القدر وجاهد الجاه شفيع الحشر واختم لنا بالخير الخير وسعادة وهب لنا حسناك وزيادة واختم لنا بالخير وسعادة وهب لنا حسناك وزيادة وصل يا ربي وسلما على محمد عين الحلي والحلا وآله ومن تلا إلى القيام ما أظلم الجو وسبح الغمام